te li ñu fi dajale mooy euh, dañuy ñëwoon fii si benn julli bu ñuy wax salaatu tasbih biñ ñëwee jumaa ji wax ñu benn soxla boo xam ne vraiment yitteel na leen lool mooy nu ñuy fexe ba jumaa ji àgg surtout nag karo yin soxla pour si biti si lañ jëloon décision fii ne dinañ ànd ak ñoom si cadre commission bi ñuy wax am dem pour tous pour que ñu ànd ak ñoom si euh, àggali jumaa ji jumaa ji boo ko évaluer fi mu nekk nii ay téeméeri téeméeri million dugg na si ñuy profité pour gërëm waa tefes yi nga xam ne dañoo jël jumaa ji def ko seen priorité ñii jigéen ñi làgg-làggal ak euh, ñii jogal ñi dem géej jëti teer ak néeg firatourneeg sayno ak ñëpp ku si nekk jaay koto essence yeeg borom usines yi ñëpp ku si nekk loo man yaa ngi koy def pour que jumaa ji àgg fii mu àgg ni ñun nag ñu bëggoon rek participer si si liggéey bu rafet boobu nga xam ne ku si yàlla nangul li nga siy def mën na nekk sa texe àdduna ak àllaaxira ñu bëggoon see eh, barkeelu rek moo taxoon ñu waa am dem pour tous ñëw fi ànd ak waa commission bi waxtaan ak ñoom ba xam soxla yi fu mu toll ñu woote nag woote am dem ku nekk cotiser man li ñu am tey ji à à treize heures laay door xam waa am dem lan lañ cotiser pour wanee rek encore il fois que am dem àndu nawle la ñuy ànd ànd la bu rafet boo xam ne man sama bopp mi nga xam ne maa amoon initiative bu créer mouvement bi yenn saa yi dañuy def acte yu rafet yoo xam ne daf may bett ku nekk loo am nga indi ko ñu dajale ko ba fi ñu toog sànq si biir jumaa ji eh, am na ku indiwaat soixante mille francs dolliwaat ko si li ñu amoon dañ noonu la ñuy continuer incha allah également ku nekk loo indi am ko ba àgg si li nga xam ne ñun ñëpp moom la ñu bëgg mooy jumaa ji àgg donc am dem pour daal ñoo ñëwoon fii fekk si

ànd ak waa commission jumaa ji ba keroog ñuy am li nga xam ne moom lañ bëgg. waaw biñ ñëwee fii si tebes comme ni ma ko waxee rek euh, dafa am émission euh, am dem pour tous quartier buñ dem dañuy waxtaan ak waa quartier ba parce que defalaate bu nekk euh, xam ki ngay defal lan la bugg daf see ëpp solo biñ ñëwee waxtaan fii gis nañ fi ay priorité yu bëree bëri bëri nag waaye bi nga xam ne moom moo jiitu woon si priorité mooy jumaa ji bu jumaa ji pare nag am na fii ay koñ yoo xam ne kenn mënu fa jaar oto mënu fa jaar si seen mbokk sax am na fa ñoo xam ne seen oto yi fa lañ des dafa rëng donc euh, oto mbalit mënu dugg si biir quartier bi ndax euh, suuf su bëri ñu waxoon ñu tamit bu ñu amee pexe si lool day dina leen neex lool moo tax ñu boole tey jii liñ indi si jumaa ji euh, boole ko ak ay camion ak ay camion gradeur ak ay latérite ak yooyu pour portion bi nga xam ne moo gënoon sonal waa tefes ñu wàññi suuf si def fa latérite indi ay camion citerne ñu tooyal ko dame ko ba nga xam ne ni oto yi dañ fa mën a jaar te incha allah buñ paree si liggéey boobu oto mbalit dina mën a circuler si biir tefes si nu mu ware pour que jigéen ñi buñ balee seen kër yi au lieu ñu koy tuur si géej gi muy yàq géej gi di pourrier géej gi ñu mën ko def si ay oto moo mën ko yóbbu fañ ko war a yóbbu donc liggéey ñaari liggéey yooyu daal moom lañ boole tey jii euh, ma si profité waat encore une fois di gërëm bu baax waa am dem parce que bu mel nii Euh, maanaam jafe na si politique waaw ànd politique yu bëri dañuy xaar leader bi rek waaye euh, ànd boo xam ne leader bi day xaar ñi mu àndal loolu loolu bëriwul kon ma leen di gërëmaat bu baax àndu nawle bi ñu waxoon ñoom chaque jour dañ koy déglu euh, dëggaleel te loolu tamit lu am solo la waaye booy booy roy tamit nit da ngay roy si ay mbiram président Macky Sall def ne Sénégal de tous Sénégal pour tous donc comme bu waa am dem ne am dem pour tous di doxal nak di dem si quartier yi euh, wa marché ngelaw ñu defal leen seen toilette yi ba mu baax karalal leen seen sangukaay yi changer tuyau yi changer fosse yi defal leen ba fim mu nekk ni euh, tabarfakalla lolu am dem pour tous moo def cana ba euh, seen fi nga xamne ne fa la fa la ñu yaaka muy keur seigne Ousmane sek ku dem ci jakk ji di nga xamne am dem tous solo fii tamit tay ji li ñu fi def ci biir tefes entre jumaa ak mbedd mom ñuy defar am dem Poutous am na solo buñ paree fii nag ñu ngi jëm Médine si case des tout-petits bi buñ fa jógee ñu dem Mbour Thiérère si benn euh, case de travail boo xam ne bëgg nañ ko defal jigéen ñi foofu buñ paree foofu tamit am na quartier yu bëri ku nekk yaa ngi commencé di positionné wu ñii si école yi ñii si bërëbu jullikaay yi ñii si bërëbu xale yi di féexloo yi xale yi di foye ñii si ay terrain de football ak yu demee noonu mais bu si nekk rek bu ko am dem dëgmale incha allah ak méthode bii ñu yor mooy mutualisation de nos moyens de nos possibilités ku nekk sa dërëm dërëm sa ñaar dërëm ñaar dërëm ñu ngi wan encore une fois également mbuur waaye ne bu ñu luñ song buñ ko songee ensemble joxante si loxo jàppante yëkkati ndoo tegandoo yàlla mën nañ si dimbali. mbuur moom ku nekk xam na ne euh, problème mu tali moom problème la si bu baax ku weddi na koy laaj sufóoru euh, clando yi ak sufóoru tataay wala même particulier yi foo siy dem bu dee noor la suuf dina la rey bu dee nawet la. taataa ndox dina la rey donc mais loolu nag dañuy gërëm bu baax président Macky Sall parce que bi mu jotee plaidoyer bi jàppale nañu si 16 kilomètres yoo xam ne si cadre euh, Promovilles indi na ko fi waaye 16 kilomètres yooyu boo xoolee Mbour dafa mel ni doxu ndox rek si biir géej donc li si des nag mooy comme président Macky Sall def na si li mu si war def te doyagul ñu ngi ko si ñaan mu continuer ko ñun waa Mbour tamit dañu war a bàyyinte xel euh, surtout autorité locales yi ñu fexe ba mbuur Euh, mobilité bi euh, amélioré wu bu baax te fu ñu teg tali nag nañ fa def ay lampe yu baax te fa système d'assainissement boo xam ne ndox bu jàllee mën a fu mu war a dem kenn du ci sonn donc mbuur daal dëkk bu mag la il faut que nit ñi xam ko mbuur dëkk bu bu yàlla teral la mbuur mooy dëkk Serigne Saliou Mbacké yàlla dafa jël si benn période jël ay lu kenn xamul si ay wàllu yu mu indi ko si mbuur ñooñ ñëw seen liggéey man dama gëm ne du du jour bi moo ñëwagul rek waaye du du ndax saay si même période bi nag la ko yàlla indee ay wàllu yoo xam ne ñun reconnaître fii si Mbour fii si Sénégal ak même euh, à l'étranger donc dëkk boobu nag dafa war a am xar kanam bu mu war a am ba ku fi dugg nga xam ne fii mooy dëkku Sëñ Saliou Mbacké bi ñuy wax loolu moo tax ñun waaw waa Mbour dañu wax si war a bàyyi xel bu baax ku nekk loo am nga def ko si loo man nga indi ko loo xam nga indi ko ñu fexé ba dëkk bi changé xat kanam am tali yu baax xalé yi ku bëgg jàng jàng ku fébar fayu ku bëgg liggéey liggéey dëkk bi dox comme ni ko président Macky Sall buggé ba jël Mbour duggal ko ci triangle vertueux bi muy Thiès Mbour Dakar jël jam ñaaji def ci digg bi waye buñu sàgganee nak Mbour dafa na a génn ci triangle bi triangle bi dafa na doon Dakar jam ñaaji Thiès té loolu bu amé ñun ñëpp dinañ ci dañ ko layé ak suñuy doom Mbour bi dafa djuma bo xamné dafa am importance ndax li muy représenté ku xam histoire Mbour rek di nga xam histoire djuma jooju djuma bobu am lu bari lo xamné ni daf ko jouer ci si Mbour ci installation Mbour mais également ci développement Mbour euh, ni mu melni neexul ken en tout cas ñun wa am dem de initiative yi ñu fi mas a jël yépp pour affaire juma ji ñu ci taxaway ken kenn ñu ci plaidoyer bi tamit bokk nañ ci ñi ko porté won ba président Macky Sall jël décision ne ñu fekk si si liggéey bi jàppale ñu si euh, loolu tamit man mën naa seede fii ne bokk naa si ay réunion yu bëri yoo xam ne madame Diouf architecte bu président moo nga ca woon am na réunion yoo xam ne Dakar lañ ko def am na yoo xam ne Mbour fii lañ ko def si biir jumaa ji imaam yaa nga fa woon ak waa commission bi géré jumaa ji ñu ngi fa woon waa collectivité Mandeng ñu nga fa woon ñeneen ak woon li si des nag mooy ñu continuer rek plaidoyer bi pour que li nësër bi président Macky Sall am si jumaa ji mu mën ko àggale si nu mu gën a rafete waaye jumaa ji moom mu àgg ndam la pour waa mbuur yëpp sakk la pour waa Mbour yëpp te mbégte lay doon également pour waa Mbour yëpp kon ñun ñëpp te pare nañ li ñu def fii si jumaa ji def ko si yeneen i jumaa pare nañ initiative bu jóg ñu ànd si ñun ñëpp joxante loxo waa Mbour xajuñu si jumaa jooju buñ ko songoo ñun ñëpp rek ku nekk def si sa xol def si sa xel waaw def si sa def ko sa yitte yàlla mën nañoo dimbali bu baax pour que jumaa ji àgg si nu mu gën a gaawe donc ñun daal pare nañ pour bu ñu si dégg ñu ngi si biir ñu fay jiitu waaye également porte plaidoyer pour que président Macky Sall euh, jël mbuur boole ko si euh, programme de modernisation des cités religieuses bi bu ko defee ni mu ñu defaral euh, jumaa Cerno Mansour Bara bi ñun ñëpp ñu kontaan si mu defal ñu ko grande mosquée de mbuur bi bu ko defee mu àgg fa mu war a àgg si barke Muhammad sallallahu alayhi wa